seen réception image yi moom la ñu gis noonu ak vidéo yi nga xamante ne ah, daal nañ koy partagé muy kii di Aziz Ndiaye ak Aïcha Rasoul ah, ñuy daal di affiché wu rek treize heures mu daal di doon ah, couple bu rafet lool moom Aziz Ndiaye nag gannaaw mu daal di jël rek Aïcha Rasoul ñaareel mu mel nag daal nay affiché wu rek daal di partagé ak moom de très bon moment foofa ca réew Dubaï ak vidéo yi nga xamante ne daal di nañ koy amal foofa ca réew Dubaï mu mel ni nag ni ki tey amal nañ seen i réception daal di rek partagé ay ay photo ak i vidéo yu rafet lool gis nañu nag li jiitu lool sax ak la nga xamante ni mën nañ ko duppee anytime bu ñu daal di amal rek muy sañse nga xamante ne moom ak Aziz Ndiaye daal nañ koy def rek ni ki tey nag réception sax lañu mën a wax rek foofa ca réew Dubaï muy couple bi di Aziz Ndiaye ak kii di ay Rasoul bay ci sawar ma way la yaa baax boogi baay moom la ñuy alami noonu la bëgg réew boole ka benn maas soo bëggee mu bett dal al amin soo bëggee laal xolam Seydi Aboubacar Aziza la Njaay tuwaawoon lay saboo